bismillah noo ngi jóg di sant yàlla buur bi nag sun sëriñ bi nag mooy doomi sey xisaaliw am na ngaram ca sun borom giñ naa ne def morom cey doomi sey xisaaliw du jëw du xas di yàq de sëriñ yaa di mbar ko ko sopp doo tureer cey doomi sey xisaaliw te Mbàkke yaa tee nu gëlëm budul kon ak yow nu gëlëm ba nu jot ci say ngërëm doo mi Seexi Saaliw xàll nga yoonu euh, tarbiya bam sell nga teg ca ban jiitu mboolem donga yi cey doo mi Seexi Saaliw yaa mataway yaa mataroy billaay ndaxte yaay doni xaadimum rasulillaay am nga maqaama yaay borom tiraanga wallahi Mbàkke yoo amoo yaraanga yow doo tooñ te ku tooñ nga baal doo fayoy mer wallaahi mbàkki ñëpp xam ni ay gor ñetti bayit yàlla sax ci bég loo yàlla ak yoneen a xaadimum rasulu sallah alayhi rabbuna bil ali wa sahbi fil ali wal mali waa njàpp ndal daaru salaam gis nañ sa jëf ji mbàkke dañ na fépp ku ne ci ñun sant na la yow mbàkke yal na la yàlla dolli leer sëriñ Cheikh mbàkke war na di sant suñ sëriñ bi mbàkke tey sant baayam bi borom xar baaxi te yàgga sant maamam ji sëriñ Touba yal na ko yàlla fay jëmam su booba nu dellu seeti tey sàkku seeti nga may nu liiti tawla yow mi ngaram yu sell ak xol yu sell ak ngam gu sell may nu ko yow mi sun jaf na lay neex sun wax na lay neex sun yeena nay neex tawla yow mi sun aaja faj ko sun bor yi fay ko ku ñàkk may ko tawla yow mi fun man di nekk na fa nekk lu waay di bëgg jox ko ko yow mi nangul nu ñaan yi te may nu ñaan yi ba jot ci ñaan yi ci yàlla yow mi sëriñ Seex ay nit ak cosaan ab nitam du rey nasaraan jàng xasida ki alxuraan sant gaaye tarbiya sëriñ Seex ay nit cosaan ab nitam du rey nasaraan jàng xasida ki alxuraan la sant gaaye tarbiya ci Mbàkke xam nga ki nga doon koo yar du wax su mayagoon ku ko waxit ma talu doon mooy waa jadogoonub tarbiya yërmande yaa di buntu ba sëriñ bi noonu duna la ba te say tere dinañ ko ba insa allahu xam nga ko sëriñ bi dolli ni ndimbal nun noo moytu say ndimbal jébbulu nan di seenu say ndimbal koo ba mu lor xam nga ko ku ne ci ñun tey lotte naa tege ci yoon te jaaxle naan toog nan xalaat sun xel naan am na sëriñ tawat gogo nun lottu nan ci jàll ndax gàncax gu jóg ba kawe laax nun jaaxle nan di la ko wax sëriñ bi lii saafara ko nun noo di gàncax mbakke yaa ndox tool boo fi géej day mar balaax xol boo fi géej seytaane jax borom ba wat ko sànni ko nun noo di gàncax mbakke ndox tool day mar balax xol boo fi géej seytaane jaax borom mbawat go sànni ko samp na daara di tuuba daaru dellu fa sam fooraas muy xel ndox mu neex ñuy naan di sangu di fóot di sant sëriñ saaliw mu dellu sam fa ba ku wopp mu faj ku faatu mu yóbbu tuuba jébbal boromam marhaban bikum jërëjëf